président de la république son excellence Macky Sall ànd ak le ministre des infrastructures ak tout le gouvernement ñëw nañ fii nii si Thiès pour lancer waat euh, les travaux de réhabilitation diggante Dakar ak Tambacounda donc réhabiliter voie ferrée bi loolu lenn la wante itam il faut nga forme benn personnel bi nga xamante ni bés bu ñu réhabiliter voie bi ils seront en capacité aussi ñëw taxaw assurer trafic bi que tout se passe dans de bonnes conditions de sécurité ñu animé waat ay session de formation formé ay formé ay élèves yi nga xamante ni fu mu toll nii jàll nañ seen examen jàll nañ yëpp def nañ seen stage et cetera donc tey dañ leen doon jox seen diplôme. donc dañu jël ay bac plus 2 en général dugal leen fii former leen et cetera ñu nekk ay ñu performant ñu conscient yi nga xamante ne xam nañ aussi métier bi. ànd ak ay encadreurs yi tam yi nga xamante ni ce sont des passionnés de ferroviaire ñu jàngal leen. raay bi fu mu toll nii mi ngi bëgg yemb xam naa ni boo moytul premier trimestre 2023 bi incha allah euh, reprise effective euh, fret bi diggante Dakar ak Tambacounda dina dina dina démarrer parce que travaux yi daanaka li si des euh, bëreetul léegi mu jeex. depuis le début de l' année les de fer du Sénégal se sont lancés dans une vaste entreprise de relance du ferroviaire ici euh, au Sénégal. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a lancé les travaux euh, pour réhabiliter la voie qui quitte, euh, de, qui quitte Sébicotane et qui va aller jusqu'à Thiès. Ce qui va permettre de reprendre le trafic fret euh, au démarrage de l'année 2024. Donc réhabiliter euh, la voie ferrée, c'est une chose, mais former des agents pour qu'ils puissent assurer euh, l'expédition des trains et à la sécurité ferroviaire, c'en est une autre. C'est pour ça que tout au long de l'année, nous, nous nous, sommes évertués pour préparer cette reprise à faire un certain nombre de séries de formations. Euh, Aujourd'hui, c'est la deuxième promo qui sort pour se mettre fin prêt pour être apte à redémarrer euh, l'exploitation ferroviaire euh, l'année prochaine. Donc c'est une belle promo hein, euh, avec une moyenne d'âge euh, qui est très très jeune, ce qui permet aussi d'envisager de, plus sereinement euh, l'avenir au sein des chemins de fer du Sénégal.